te xàmmee li ñu moom bu ñu sàgganee li ñu moom dëkk bi ñooy borom. suñu dëkk borom doole moo fi mës a am kat au tribunal Abdou Khafor ndax xam nga ne fii lépp loo fi wax. nañ ko bind baa ñu enregistré ko kon lépp loo fi wax na doon lu leer Abdou Khafor ndax xam nga li la di toppee. xam naa ko waaw lan la la yoon di toppee. may wàcc li may bëgg a wax yoon wi may toppee saaku ngooñ bi jar juróom benn téeméer dama jëlu ma ko. yaa ko jël jëlu ko yaa jël yoon teg na sa ndodd li fukki at yi kaso boole koog alamaan la 500000. borom doole dalay tooñ yóbbu la ci yoon kii àtte tooñ jël tooñ teg ko si kaw ki ñu tooñ kookoo dàq tooñ ki tooñ ki ñu tooñ suñu dëkk donc ñu baadoo la ñu siimee cere bi waaye cere jooñ yàggam yàggam day naax saay suñu jëmm gàccal na suñu ndax boo amul dañu lay ber te ñun dañoo bari ay bëgg-bëgg te suñu dëkk boo amul doo bari ñu lay bëgg te dëgg-dëgg fii daal boo amul kenn du la jox sa gën ci ngay fëggee sa dënn ne faax ne bitti bu faax bu jëli say waaju ñu ñaanal sama doom xamal ne wërsëg du mbaxe jom ak fit moo lay tax doon góor xamal ne nga bàyyi lu bëri ginnaaw doxal bul ges xoolal sa njoganaay ñii ku leen dégg doo teral yaay doo teral baay ay waay boo leen rombee ne leen baay baay lu kenn mën ñaara ko ko du ñu bëre te ñaara mën kenn nañu booloo booloo doon benn ndaxte booloo mooy doole suñu bëggee yëkkati suñu Sénégal ca kaw dafay laaj fulla fayda ak jom dëgg neexul liir bi màtte neexul a bor alors monsieur le procureur gis nga PV bi ma la avant waaw moom la waaw ok mais commissaire am naa laaj de Ousmane xanaa doo dégg laajuma la à nous comprendre que la solitude n'est pas toujours un mal mais parfois il nous nécessite à temps à nous nous comprendre que les regrets sont des scènes qui nous empêchent d'avancer à temps à nous nous comprendre que cette fin est un nouveau commencement déguisé nous nous la jeunesse nañu jàng ngir xam xam tey xam la ndaxte xam-xam mooy ngeen gi am am loo jàngul doo doon sëriñam. yow yi ànd te bëgg a raw. yéen ñuy wax nga raw. yii ñu taxut a raw. da ndax nga mucc di wax dëgg. day waxante dëgg. di jëfe dëgg. ñu jox la sa gëdd. bokk wenn doxin. bokk wenn toogin. nuroo jëfin. nuroo waxin. bokk wenn jëmuwaay. bokk wenn bàyyi ci toolu bàyyi li fi maam yi bàyyi waruñu koo bàyyi muy nax saay dañoo dëkk ci lëndëm bopp nasaraan si li ñuy lëndëmal ñu leen di ñu ñu war a teg si yoon ñooñu wàcce loo yoon ñi war a wax dëgg ñooy jël dëgg bi dëgg seetaan suñu dëgg dañuy gis dëgg te kenn du wax dëgg dëgg wax dëgg du dëgg la dëgg la dégaase la xanaa dañoo fàtte ni bakkan bu mas suñu dina mas dee ku ñu xalaat dee lu la neex def waaye bis dina ñëw dinañ la gasal gaskat bi sax dinañ ko gasal au travail monsieur le commissaire ñun nag vraiment dañoo sonn. inspecteur Fall dinaa la rajo laa ko àtte ca liggéey ba. waaw Seck yow loo koy ñëw addina ah, war na buur. addina war na baadoola addina war na naafet addina yaa ngi ci kaw suuf ëllëg yaa ngi ci biir suuf bu ko dul xalaat lu la neex defal waaye faw dina la gasal dee buy ñëw du tàgg ko kon waaj ko sa xaar ko lu fi jara xiiroo ba ci ŋaayoo bis dana ñëw nga wéet ak sa bàmmeel tey jëw fee dellu sa biir bàmmeel muy lu baax muy lu bon addina du kër ku ko jàppee kër dina la tër wallaahi yàlla buur moo di mën jàpp jàmmam bi tër te kenn su ràññee jëmmam loo fi gis du fi way sax moo tax lu neex la neexul sàmm ci ngor moo leen lu neex la neexul day xala wuy ba mel ne daf musu fee am àddina mooy rëy wa nañu may ju xel ci àdduna sàggan ci àllaaxira fàtte yàlla naw sa bopp xeeb say morom yàkkamti ñaaw ñor